طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bu ngeen ko déggee mooy ñun ñëpp ci yàlla lañ jóge te ci yàlla la ñuy dellu Ablaye ñu gën ko xam ci mu TFM doon ànd ak ñoom doon ànd ak te ñu xam ko ci talent boo xam ne macha allah moom lañu jot ay xibaar léegi TFM lañ ko jotee ne dafa gaañu dafa génn àdduna ñuy ñaan rek yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko xaree ko àjjana ginnaaw feebar bu ko taloon nag mu xawoon a métti lool ñu jot nag ay xibaar léegi ne génn na àdduna ñu koy jaale axlu culture ñu koy jaale ñëpp rek képp koo xam ne yaa ngi seetaan vidéo bi nga ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko. te xare ko àjjanay firdawsi ñu xam ne ñàkk nañ ku mag nag wax dëgg yàlla njaay moom ku nekk war nga ko mën a ñaanal ku nekk war nga ko mën a jaale sa bopp yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko te xare ko aljana firdawsi ذراعا وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتعوا أيا نفس أدرى